collectif gadai, dañoo sës dañoo am nakar, dañoo am gàcce ci sen justice am gàcce ci état wu Sénégal loolu moo tax ñu dajaloo fii tey bi maanaam li ñu fi ñu teg wax musu mooy mosuñoo gis nit koo xam ni première instance da laa dañ laa débouté nga dem cour d'appel ñu débouté la nga dem cour suprême ñu débouté la ñu condamné la nga toog di saraat loolu yëpp kenn tëju la yaa ngi sa biir kër loolu nekk na lu ñu naqari première bi loolu la deuxième bi mënuñu comprendre depuis 2013 état wu Sénégal ànd ak promoteur Babacar Fall ñëw toj suñuy kër ci loo xam ne teguñu ko ci yoon mm-hmm. taxaw duñu seetaan non seulement yemu ci yëkkati 23 hectares jox ko fii benn commune ab benn groupe mm-hmm. ñu yor ay terrain fii ñu ne pour ay infrastructure la ay affaire wu ay kër yoo xam ne dañ ko tojoon la ñuy seen borom nanga noom c'est pas vrai am na ñoo xam ne dañoo jënd terrain yi fii am nañ fi lu leer nañi loolu aussi mu nekk lu ñuy ñaawlu ñun suñu problème problème dak six hectares la nañu ko état jox ñu jël sunu alal si jàmm ak salaam li ñu waaj yàqal bu ko mënta fay ñu bàyyi ko yàlla mais na ñu delloo suñuy kër parce que amuñu fu ñu dëkk mhm. l'essentiel bi mooy fii ak 15 jours su état deful benn réaction dinañ ñëw fii entamé grève de la faim ba président de la république wax ak ñun parce que doon nañ pale ñaari yoon directeur cabinet Omar Youm dalal mois dalal na mais li ñuy wax yëpp amul benn réaction bu ci am ñu ngi gërëm nag autorités yi nekk fii ku mel ni Moustapha Ndiaye préfet dox na ci ne dem na réunion de sécurité wax ko fa état faale wu ko ñu ngi gërëm sous préfet wax na li mu war a wax Omar Diak kenn faale wu kon donc li ñu ñun xam nañ ko dinañ leen di fekk si état na réglé suñu problème parce que mi ngi réglé problème mu ñeneen loolu am ci lu ñu wax fii ak 15 jours tëdd fii lu xew nag nañ xam ne état mooy responsable bi